di ko xam ne itam xam nañu bu baax a baax digganteem ak Bougane Gueye Dany grand Serigne nuyu la bu baax a baax waaw xajo bu ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du nuyu mboolem àdduna bi yëpp la di leen ziyaara bu baax a baax a baax di ñaan suñu borom suñu kàddu yàlla na fekk ñëpp ci jàmm wasalaam waaleykum salaam grand Serigne comme ni ñu koy defee yow saa su nekk rek sa waa ji Bougane Gueye Dany di njiital mouvement gëm sa bopp boobalee bi caabi daf ko fi féete ginnaaw fa ñu le nag am na luñ ci waxtaanal mais gis nañ daal jamono bii cas bi critique na lool kii bugaan gi de. non abu cas bi critiqueul jarul tiit ndax lépp yëfu maanaam bañ opposant rek mais opposant mënut a ñàkk cim réew. bañ opposant jeex na képp mais li nga daan def démb bu ko ay nit def da nga leen di accepté accepté nangul leen loolu mooy dëgg. mais bugaan li mu def dafa jaadu dimbalee la nekk alxuraan lu wax na ngeen dimbalante alal birri ci mbaax wa taqwa ak ragal yàlla ay nit yoo xamante ne bi dañoo loru mën na mi dal seen kaw fu ba yegg si bugaan ànd ak ko àndal ceeb dëwlin suukar meew dégagé ay enveloppe ay million yu bari yu leew nag ay santa de millions yu mu muccuwul alalu askan wi jëlul alalu nit ñi wa akulu amwaali nas bi xayriti bi nafsi lekk alalu nit ci lu lu teyu bakkan yi. daa ñu ko def bugaan jug taxaw am na ñu ko def. Bougane jóg développé millions yi toll noonu ak ñum ko àndal fekki waa Bakel amul xajja amul seen ngir la ñeew lal yi ci ndox mi liir ci ndox mi lu ne mu taxaw loo xamante ni bi tey liggéeyu état la woon mais mu engagé wu ko ñëw di ko def kooku li ñu ko war a def mooy doon ko waroon na jaajëfal su paree ñu décorer ko jël remise de diplôme bu mag jox ko waaye kuy dimbale ay nit ñu jàppale tëj la ci. mais itam xëccoo ak ay maanaam alkaate ndax moom gis nañ vidéo yi bi ko alkaate bi taxawee ne ko waroo dem dafa ne président mu ngi bàkkeel wax leen que. damay dem bàkkeel xëccoowul ak alkaate daani leen da ngeen may arrêté du ngeen may bàyyi ma dem mbaa ngeen jàpp ma mais loolu problème waru ci juddoo mais fitna kenn du ko yéey cim réew. alquran ne wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xassa abu réew mi ay ragal newuñu fi ay gaynde newuñu fi ay bukki newuñu fi ay nit a fi ne ku la ni xuux ne ko xuux dañuy maskaw rek buñ la tiitalee nga arrière ñu foosa sa kaw waaye bëggaan nokk nag bi bëggaan amee fit mën a tenir boppam mën a téye boppam mën a bàyyi xel fu mu ne nii bëggaan li wane na ni askan wee ko ñor dimbali aw nit ba ñu tëj ci kaso onze jours loolu lu ko gën a metti amul nga nga gàddaay say bokk gàddaay sa sa say say njaboot gàddaay say jarbaat gàddaay kilim yeeg yëpp dem tëdd ci tàngoor xoolal tàmbaani mu mette mais nee nañu itam moom fi ñu ko dugal daanaka lu ëpp 48 personnes ñoom ñoo ci nekk loole est que yell na en tant que Bougane gi mais mais abu bu dee loolu am na yellul Bougane nit la. bu passé cadre nit kilifa la kilifa la. yàllaa ko yàllaa ko màggal. ñu fi nekk bi ñu leen tëjee te ñu la woon ci 47 personnes ak 48 personnes abu loo bëggul ñu def la ko bu ko def aw nit mbub moo sol jotu la bul ko solal sa nawle. kon da ngaa jàpp ne ñoom ñoo ko tey ko ci 48 ah, personnes. mais mais mais mais seen bakkan la ngir bëgg koo noppi doo <coughs> waaye bugaan mi ma xam. xam taxawaayam su génnoon tey suma mu wax mu bu génnoon 9h mu wax ndax ragalul. kon jàpp daal kon moom du noppi. du noppi de lu may noppi réew ñaara fi ne ñaari benn jaru fee ragal tëj kaso ak dee bàmmeel ku dund di nga dem. qul inna al mawta alladina tafiruna minhum mulaaxikum suma turadduuna ila alimi alxaybi wa shahaadat fa yunabbikum bima kuntum taamaluun jeex na. yàlla nee na dee mi ngeen di daw day dajeeg yéen ñaareel bi mooy kaso kaso loo ci ragal Sidna Aline tëj nañ ko une heure de temps Sidna Aline tëj nañ ko une heure de kaso sunu maam Cheikhul Khadim àndut ak tubaab bi ñu isili ko yóbbu ñaata at juróom ñetti at yu mat wala yu manqué ah yitte yàlla Yuusuf xoolal Yuusuf ak nattoom yu rëy ya Yuusuf ñaata at lañ ko tëj ci kaso bi fukki at ak ñaar mais bu ñu ñëwaatee un peu ci li wax keroog bi bi mu ñëwee kees nee na maanaam Sénégal amatul ay opposants ndax nee na maanaam am na ñoo xam ne bu ñu leen nee coppet yóbbu réew mi yënguwul mel ni daal moom dafa ni daal léegi réew mi gis nga gis abu am réew terrorisé yoru ko làmmiñ wu neex yoru ko sos yoru ko dëgg ko yor aleykum bi siddiqi fa inna siddaha yahdi ila albirra fa inna albirra yahdi ila aljanna yàlla ne yonent bi nee na maa ngi leen di dénk dëgg dëgg daf lay ci mbaax mbaax daf lay yóbbu aljanna ci émission bi eh, nguur yàlla ko moom moo ko jox ku ko soob waaye génn nguur gu fi sax éternellement amul ah, ay na maam Senghor dem na ay na maam Abdou Diouf dem na ana maam Abdoulaye Wade dem na ana président Macky Sall borom jëf ju ji dem na ñii fi toog bis jot ñu dem mais opposant opposant am na ci réew mi kay Bougane a ngi fi opposant la mooy chef de opposant yi mais dama ni Bougane la xoola mais xoola Bougane li mu taxaw ba ba ba taxaw tey jii ñu namm ko mu nangu ñu tëj ko ci ngir ay nit génn jaamaarantu nit ñi lu xew. mais suba la procès bi ndax Bougane buñ ko tëjee réew maanaam réew mi dina ne. mais Bougane buñ ko tëjee réew mi mën naa yëngu xanaa xam nga loolu. te incha allah seen kaw fu la émission bii di euh, lu xew euh, Sénégal tii ñeel nag mbiru fait divers ak itam leneen yeneen ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoo ci aju am mbégte kontaan te nuyu nañ leen nag fu waay nekk tey jii nag itam yemook àllarba yemook fanweeri fan ci weeru octobre nga xamante ni daanaka jamono bii nii xel yëpp ñoo ke Tambacounda nga xam ni tey nag moom mooy procès bi nga xamante ni daal moom moo war a opposé Bougane Gueye Dany ak ña nga xamante ni ñoom ñoo koy atte nga xamante ni nag moom eh, ci fàttali bi mu demee ci yoonu Bakel daal ci lañ ko daal di teg loxo ndax nag dañoo jàpp nag moom amul woon sañ-sañ dem waaye dem sax moom daf mel ni daal ku doon xëccoo loolee lañ daal di wax waaye li ci mënti am daal tey lépp na leer dégg ngeen la nga xamante ni loolu la grand serigne de Thiès daal di wax ki taxawaayu Sénégal ki itam situation réew mi nga xamante ni nag euh, opposant bu ne jaar na fi ku ne tëdd na kaso waaye tam tamit euh, maanaam ci anam bi nga xamante ni fa ak ak fañ ko dugal loolu lépp tam nekk nag ay ponk yu nga xamante ni daal daanaka yëkkati na ko jëmale ci la nga xamante ni moom war gis-gisam waaye itam tamit ku ne xam bi itam Tambacounda ñu ngi seen sax ci maanaam image yoo xam te ni ñu ngi gis ku mel ni Barthélemy Dias mi ngi foofu ku mel ni Abdou Mbow ku mel ni Pape Djibril Fall nga xamante ni ñoom ñëpp daanaka ñoom ñoo sekk coalition bii di sàmm sa kàddu ak ak takku wàllu di intercoalition ñoom ñëpp daal jamono bii ñu ngi foofu nga xamante ni moo di Tambacounda ngir andi seen gis-gis alors bu ñu ñëwaatee un ci situation bi ndax nag Bougane Gueye Dany il est candidat maanaam moom candidat la ci élection législative yi ndax bokk na ci kilisi bi moo ngi saa itam ci juróom-ñeenteelu place bi nga xamante ni euh, moom moo. moom la daal di maanaam nekk rek ngir itam bokku te ña xam te ne dañuy dagaanu baatu askan wi ngir dem teewal leen foofee ne eh, ca pencum ndaw réew ma lu ci mënti am daal itam ba xam dina génnam déet lu ci mënti am eh, tontu bi dinañ ko xam ci kanam ndax nag bi 9 heures jotee ba passé ñeent fukki simili ak juróom benn kii di avocat Me El Hadji Diouf itam daal dinay dem ak si foofee ne ca Tambacounda ngir daal itam layal ka nga xamante ni moom moo di clientam di Bougane Gueye Dany procès bi nag nee nañ sax daanaka itam presse bi ñu bëri ñoom dugguñu ndax dañ leen a daal di écarté te itam sax am na suñu naataango yi nga xam te ñoom ñoo nekk foofu nee nañu sax mbir mi daanaka procès bi euh, dañ ko ya yaataluñ ko Bougane Gueye la avocat am ak kii itam ña nga ak ak ña koy ñoom daal daanaka ñoom ñoo sekk la nga xamante ni moom moo di mbir mi niñ ko andi saa su nekk rek ak Fall ak Fatou Niane ki émission bi di lu xew Sénégal ñoom itam daani dugg léegi ànd ak ñun waxtaanandoo ak ñun ci itam situation réew mi waaye itam tamit duñu fàttee wax itam ci mbiru politique nga xamante ni itam Amadou Ba moom itam démb mi ngi woon foofee ne ca Ngunjaan daal di itam yëkkati ay kaddu daal di koy tontu ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko dem sax ba naan itam réew wax ju bëri yor ko ndax jàpp nañ daal képp ku nga xamante ni daal wax moo tax nga falu itam bu yàggee di nga dem ba yàqal sa bopp amul ba nag dafa jàpp daal yàgg-yàgg daal Ousmane Sonko dina daal di dugal boppam mu nekk itam kàddu yi nga xamante ni démb yëkkati na ko foofee ne cëngu ñaan nga xamante ni ñëwoon na fa lu mën itam daal ñu ngi numéro daal ay itam tontonte yu nga xamante ni daal am na ci seen politique bi diggante Ousmane Sonko ak itam ay opposant am waaye te booba jamono itam ku ci nekk ci ñoom daal yaa ngi dem fa nga xamante ni fa nga gën a yaakaar ni askan wi dina la jox eh, maanaam seen seen xob jox la seen baat ngir nga teewal leen foofee ne ca pencum ndaw réew mi aca mbokk yi mu noonu émission baa ngoog di lu xew Sénégal waxtaanee mbiru fait divers am na tam beneen fait benn fait divers bu nga tamit tey dinañ ko ànd ak yéen ñeel benn xale bu nga xamante ni dafa daal di disparaître mystérieusement waaye tamit beneen cas bu nga xamante ni tamit benn femme moom moo ko daal di dund ci borom këram ak ci néegu sëyam yooyu yëpp nag lañ ko ànd ak yéen ak suñu naataango yi di Fatou Sengane ak di Fall Damel ñoom itam xam naa ni léegi ñu si bu ñu yegg si itam rek ñu bàyyi leen ak ñu bàyyi leen ñu daal di dugg ñoom itam joxe seen xalaat ci li nga xamante ni moom moo di xew-xew yi nga xamante ni moom lañu andi tey mën ngeen itam dugg eh, ci numéro boobu di 77 631 25 79 ànd ak ñun ci taxawaayu réew mi procès Bougane Gueye Dany tey bi la moo ci seen xalaat ndax dañ ko war a bàyyi mu ñibbi ak itam jamono bi démocratie Sénégal ndax itam mi ngi fi mu war a nekk ak itam eh, ña nga xamante ni daanaka sax jàpp nañ leen ay politique jàpp leen